jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa day di ñaanaat réew mi Sénégal yàlla sunu borom dolli jaamu tey nag ñu dalalaat sama consultant ci kër gi nekk directeur ci kër gi mu di Cheikh Ahmed Cissé borom àndalaa buri borom doy waar borom rigu euh, Cheikh bi ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. maa ngi lay fay maa ngi fay ñi nga xam ne dañu tàmm people 221. di dalal ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ci sit bu bees di ndokkeele jullit yi ci liñ jóge ak ci liñ jëm di tamxarit waaye di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na yàlla jël ci mboolem fanu jullit yi yëpp yokkal ko ko muy gudd fan defal ko ko muy jàmm ndax journée xasida bi mu woote woon lu am sens la lu am solo la te jëriñ na jullit yëpp ñu ngi koy ñaanal loolu jàmm Euh, beneen bi ci des di ñaanal nawleem yim nekkal ci réew mi muy xalifa yi nit ku nekk nag xalifa la ca lam doon xalifa la ci bërëb xalifa yëpp maa ngi leen di nuyu kenn desul di am kontaan te teewaat file ak yow Ablaye di la ñaanal jàmm yërmande ak barke yàlla na ko yàlla def ci yow. am na solo mais Ameth Ameth déguisement bi mu mel ni man ma xoolee rek sama xel day dem États-Unis keroog gis naa xale yi di salange boobu noonu nga doon def góor cheveux yëpp affaire boobu dafa rafet quoi déguisement bii la woon de ah. bii la woon dem moom laa demee gis-gis. Euh. ma yeewu am réunion ak ñiy liggéey ci àndala buri bi. Mhm. ma pare rek solaat ko ne pourquoi pas parce que xam nga changer habillement tam communication la. Mhm. Hmm. d' accord euh, ma ñëw ci li nga wax léegi muy journée xasida yi keroog ñu gis nga def benn benn live annoncé ci lu am solo ni képp koo xamante ni bëgg ngaa dem ci bés boobu noonu laajuma la fukki dërëm laajuma la cent franc ñëwal cosaan lépp loo xamante ni ay matukaay la ay jumtukaay yoo xam ne dina lu yóbbu ba Touba man Ahmed Cissé naa ko def ak sama moyen laajuma ci kenn dara mu doon geste bu rafet aussi. waa xam nga man nitu intérêt la lépp lenn lu may def rek maa ngi cee seet suma intérêt. Hmm. su ma mënee taxaw ak ñoo xam ne xawma leen di leen teral xaw ma sax ndax safara leen jëm wala àjjana di taxaw ak ñoo xam ne ay mbirum àdduna rekk moo tax ma di leen teral naka jaam bi nga xam ne kenn xamut kum doon fii ci àddina te kenn du ko xam ëllëg yowmal xiyaam ndax benn waxam képp. Mm-hmm. daf ne balaa yàlla di bind mbindeef yépp moom ci la ko yàlla xamaloon ne mooy mbindaani yonantu bi yonantu di gërëm dundam ak deyam mm-hmm. mooy mbindaani yonantu boo xam ne sëgg na ci toolam di bay te du wàcc ba àdduna tukki mm-hmm. jaam boobule di Cheikh Ahmadou Bamba investir ci moom mooy dayob xelu bu doomu aadama mën a xelu moo tax ci li may jaay muy àndalaa buri di doy waar di soq di régu nga xam ne lépp 100 pour cent garanti laa ci teg ma jël ci xaalis boobu la luwe ci biis yëpp ci ay jullit yu sell ay murit yu baax te xaw ma ci kenn ci ñoom. ñu dem Touba ci journée xasida bi. Mm-hmm. ndax kat nit ñaa ngi woote ci lu ne. waaye Cheikh Mountakha Mountakha li mu woote. mooy njëriñal àddina ak àllaaxira ndax wàllu yàlla bindam mooy tontóori dundam surtout xasida sëñ Tuubaa yi ndax tawhid bu wérang ci gëm yàlla gu mëtan ci doyloo yàlla ngi ci yaakaar yàllang ci tagg yonent bi mu ngi ci ñaanan ci lii lépp lépp lépp la doomu aadama bi soxla tawassul yu gën kawe nañuy tawasulee ci yàlla ak yonantu ci xaqiqatu muhammad yi ak mboolem pay yàlla mu ngi ci. Mm-hmm. nga woo nit ñi ci ñu tawasul nga woo nit ñi ci beesal seen tawhid mm-hmm. kon sëñ Muntaxa wuutee na ak ñiy woote xeex ci réew mi wuutee na ak ñiy woote lakk ci réew mi wuutee na ak ñiy woote lu ñaaw moo tax kon man ma tuddee ko bàyyi réew mi képp ku nekk ci senegal sëñ Muntaxa mat na la bàyyi nga mag ko ak magoo ko ngay jullit ak doo jullit yal na yàlla wéral te guddal fanam. Mm-hmm. niti intérêt bi ma doon moo tax ma leblanteeg sëñ Bàmba loolu ndax moom ker nga koy jéem a lebal wax ma nga lebal ko da nga koy jéem moom mu indil la timis nga jox ko sa benn bakkan mu fay la téeméeru bakkan nga def loo mën ci moom mu defal la loo mënutoon ci sa bopp mm-hmm. nga jéem ci moom mu gën ci yow nga daw jéem ci moom mu jaxasoog yow nga jaxasoog moom nga dem bay jëmmam nag. Mm-hmm. donc euh, euh, li ma doon tiijaan ba doon muqaddam ci cheikhu tijaan yi nëbbut su may bët pour ma gis mbaax gi ci cheikh ahmadou bamba ndax kat yàlla tënkuwut te dëkkul fen te du kenn mhm. d'accord mu doon loo xamante ni tamit rafet na ñu ngi lay ñaanal yàlla na ko sunu borom ful mu doon ay ngëneel ba nga yàgg koy def aussi am na ñu gis nii des fois mm, sénégalais yu bari dañ naan Ameth de tey moom day nekk ci ci ci ci ci lu baax suba mu xëy mel ni kuñ soppi mu nekk ci yeneen maanaam nekk ci lu bon daal. loo bëgg a wala foofu. xam yi ni ñu gis Ameth nekk ci Ameth nekk ci soirée yi Ameth nekk ci doywaar yi Ameth xëy rek benn bés enga enga engagé xasida yi quoi kenn comprendre lul. en fait man jaami yàlla la lu ma sentir rek laay def. xanaa xamoo am na ñuy wéet di déglu musique kan ngay nëbbu. Hmm. mais tey dama am bakkan dafa war a dund. suma bakkan bi xasida du ko dundal suma bakkan bi julli du ko dundal adduna moo koy dundal damay dem ci àddina dundal ko ba mu saf bu ma paree ci àddina nag ma jàpp dundal ruuxu gi su ma paree tudd yàlla dundal xol bi su ma paree liir expérience recherche pour dundal xel mi maanaam su ma xel mi dama koy dundal ci xam-xam su ma xol bi ci tudd yàlla su ma ruuxu gi ci jaamu yàlla su ma bakkan bi ci mbiram àddina bés bu ma dee dañuy aj suma koog gàddu ma sul ma mu jeex su boobaa amatul bégee mais su ma yëgee parce que man yàlla tënkuwul ci man man tënku ma yàlla. Hmm, defuma yàlla ibaadu defuma ko tijaan defuma ko murit yàlla dama ko bàyyi ci kennam gi muy yàlla jaam ñëpp ma def leen jaam. Mm-hmm. waaw fu ma gis yàlla rek dem fa léeg-léeg ay gospel laay teg woyu chrétien. Mm-hmm. Mm-hmm. léeg-léeg ma teg woyu murit léeg-léeg ma teg laayeen léeg-léeg ma teg euh, woyu tiwaawan léeg-léeg bu bàyyi nu ma ko sentir rek fu ma yàlla feeñu rek ma dem. man tënkuma yàlla de. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, réeree yàlla mu ngi yem ci tënk yàlla. man murit la yàlla murit la c'est pas vrai. man tijaan la yàlla tijaan la c'est vrai. man jullit la yàlla jullit la c'est vrai yàlla yàlla képp la. mooy lépp te dara du moom lii da ko war a xàmmee. su ko defee nag xàmmee sal uh, salafiste xàmmee saazali xàmmee qadiriya xàmmee xalwatiya xàmmee quraaniya xàmmee ya man nag tijaan moo ma doy ci laa ne beneen doyu doyuma seexu tijaan yi moo ma doy njiitu tarixa tarixa tijaan moo ma doy mhm. doy gam ma doy nag tax na wutiwuma leneen feneen waaye du ma xañ ma xam ne feneen fu dul seexu tijaan baax na ma xam ne keneen ku dul seexu tijaan nit yàlla may na ko ma xam ne tarixa tijaan rek du yoon bu baax ndax bu doon yoon bu baax képp yàlla digal nit ñi ci alxuraan ne nekk leen di tiijaan mhm. donc xam-xam daal moo la mën a firi. waaye boo amul xam da ngay toog rek ne Cheikhou Tidiane a gën ñëpp. Cheikhou Tidiane ma gënal ñëpp ci penc ma moo gën ñëpp yabaate la. ku ko def rek da yabaate. waaye nag ku wéet sañ ngaa wax ne suma sëriñ bii moo ma gënal ci ñu yàlla bind. ndax man suma ceeb bi ma añee moo ma gënal monsieur Macky Sall ba ca pale ba ndax xiif ko taxul ma lekk ko. Mhm. mais bi ma wan ba suur naan ndox moo ma gënal ci mbooleem ceeb nag. yaa ngi koy wax léegi nga ni sama bakkan bi dama koy dundal tey loolu soo ko waxee dina xaw a jaaxal ñu bari parce que ñëpp jàppoon nañ ni tey dundal sa bakkan bu ñu ko xoolee à l'époque ci mag ñu baax ñi weesuwul jaamu yàlla julli woor noot sa bakkan alors que yow tey fi nga waxee ni damay dundal sama bakkan mu xaw a mu xaw a mu xaw a mu xaw a lëndëm ci ñu bari. waa ci ñu mel ni yow parce que sa laajte bi rek leeral na ko nga ne noot sa bakkan dundal sa bakkan bakkan mënoo ko dundal di ko noot mag ñi den daan not seen bakkan ngir dund yàlla bokkuñoo ak man li may def man suma bakkan bi notu ma ko dama ko sëqal ba mu sëq ma topp man na dama bëgg suma bakkan bi bokkuma ak ñoom idéologie mhm. xam nga tey sëriñ Hadi Touré radiyallahu anhu nga xam ne waliw bu mat la doyoon Maodo nag ci lu bari mu cëru woon ci alquran ak wilaayatu ak tarixatu moo fi tabax jumaa ju amul kennu ci réew mi architecte yi boo leen ko waxee duñ ko duñ ko gëm Maodo daf ko dénk doomam ju jigéen muy soxnaam mu dénk ko doomam ji nga xam ne moo doon bàyyi réew mi di alhaji Abdul Aziz ad Dabbaq radiyallahu anhu daf ko fekk muy lekk cere rek paa bi di jooy sëñ Haadi di jooy na ko da nga bëgg a tas suma yaakaar sa baay dënk ma la ma lay yar ngay lekk cere di ci def suukar yow da nga bëgg bànneexu àdduna di jooy parce que sëñ Abdou dafa suukar cere ji rek loolu la doon jooy jël loxo yee teg ci bopp bi ne moom kii dafa bëgg a tas yaakaaram ndax Maodo dénk ko ko moom muy lekk cere di ko suukar. ñooñ den doon not seen bakkan man notuma damay dundal suma bakkan bi ah bokkuñu man notuma suma bakkan bi day wax dëgg yàlla dama koy dundal. Mhm. Ah, moo tax soo may wéy day neex léeg ma voyage yi dugg ci avion yi piscine yi di di enjoy quoi. j'aime bien léeg-léeg ma teg xaalis bi ci néegu la di ko xool di kontaan gis billet yëpp di diimel am xet gu neex j'aime bien donc man suma bakkan dama koy dundal man notuma ndax jàppoo ne loolu ëllëg mënul dem ba lor la aussi. waaw bu dee aw ma xel lu ëpp lore. lépp lu ëpp rek da lay lor. Mhm. xanaa xamoo am na ñu noot seen bakkan leeru yàlla dugg leen ba wéeratuñ yàggatuñ sax ci suuf ñu dee. Hmm, bàyyi fi njaboot dem dayoo baaxul jéggi dayoo baaxul léeg-léeg ma dundal bakkan bi ba yëg ne dund na nag ma tëj su ma nekk fay sumay téléphone dugg xalwa wéet yàlla ba ruuxu gi dundaat ma ñëwaat man daal ci xaw foog rajo laa nekk. léeg-léeg ma ragal yàlla ba foog ne baaxut léegi léeg ma yaakaar ko ba foog ne safara amut ci lii laa ne. Mhm. this is my own way. Mhm. d' accord na solo su may taalibe quoi. d' accord <laughs> ah. nante yi. léegi est ce que yi tamit xam nañ loolu ci yow. si man ñi may topp yëpp dañ may dégg dañ may dañ may consommer nice quoi du ñu tëdd te dégluwuñ ma du ñu yeewu te gisuñ ma. parce que man sëriñ laa boo xam ne damay ànd ak jamono par minute maa ngi wax maa ngi communiquer maa ngi doose donc taalibe yi may topp man duñ gaañu. mais parce que ñun xam-xam xaalis jigéen rek ci la ñuy dox lu ñu waaye gën a bëgg jëlal. <laughs> mais majeure partie ne nañ Ahmed moom boo ko dénkoo daa boo boo boo déggee ay waxam comme taalibe daal ci yoonu sàngu lañ gën a jege ka parce que li nga leen di wax ni daal nekkul lu leen mën a jëmale kanam. si ñu ngi dem kanam man suma taalibe du des ginnaaw aw ma buy taxawaalu te liggéeyut ma ne la xam-xam xaale jigéen képp ci la ñuy dox. Hmm. ñu ngi liggéeyi ñu ngi jàngi ñu ngi doxaana man sumay taalibe ci lii képp laa leen woo xam-xam xaalis jigéen lu ñu waay gën a bëgg jëlal. dineen wuti xam-xam ba xam fu ñuy teg suñ tànk dineen wuti xam-xam ba jàpp nit ñi ñuy nit yàlla di yàlla dineen wuti xam-xam ba xam suñ mbiri àdduna nuñ koy doxalee wut xaalis ba mën koo gérer ndax su jongama ji ñëwee toog kër gi mën a neex mm-hmm. boo demee ba nooy la nga woote 77 285 38 38 jënd benn àndala doy waar ñun amuñ benn problème am na solo mm. amet ñu gis ni say wax yu bari da nga daan wax gars yi di ko apprécier euh, par rapport ak fan yi sorte yi nga mujjee def Euh, ma ñëw ci kaawu Ndeye bi sénégalais yu bari aussi tamit xaw la ci ŋàññi que ni d'accorduñ ak yow ci kàddu yi nga yëkkati woon. c'est ma fu suma yoon nekku ci Ndeye moom wax ma tontu ko man seetlu ma Ablaye ku ma tuddul ci internet duma la tudd. Mhm. te ku ma tudd xaw ma la duma la tontu. ba pare ay xaritam di def vidéo ci man mu koy posté ci compte YouTube am eh TikTok loolu mooy yaa ko wax nit ki rek. mais man as gor la Matar moo ma ñaan ma ne ko baal na laaq baal baal ma mais nekkul gis naa ñuy tiitire jéggalu na ndéygee jéggaluwu ma ko de jéggaluwu ko wax ji yemut foofu dama ne baal naa ko ak li ma ko dencaloon man moom it na ma baal comme jullit mais nekkut maa reconnaître na maa ko tooñ na ko baal ma c'est pas vrai ma tëj wax ji tourné jàll ci leneen moom ma tudd ma tontu ko su ma tudd toon duma ko tontu. te bala may tudd waroon naa ko kóllëre yu rafet yi dox suñ diggante en tant que nit ak nit en dehors des caméras dégg naa ci sa kër diwlente musuma ko gis kër kenn dama daan dem restaurant di lekk fekk ko mu toog mu nuyu ma comme càmmeñ ma nuyu ko comme jigéen musuñoo sekk lu ñàkk fayda fii laa mën a yem mhm. te fii laa yem mhm. te sewuñ kër kenn man du ma dem fenn bay tase kenn. xam neen su ma jëm waaye su kër mag la kër Pape Diouf maa ngi kër. mais dafa baaxoon ci man ma baax ci moom mu considéré ma ma considéré ko kooku su nekkee ci nattu waroo toog ñu taal la nga wax loo ko warul man li ma wax c'est simple. ma denc suma tontu ba bés bu rafet ñëw ma dóor ko ko Matar Diop wax ak moom ma ne ko loo ma ñaan ma may la ñaan nga ma mu ne ma ma ne ko banaa te banaa boobu ci laay dëgg ba àdduna tukki. ñu bari sax doon wax naan euh, euh, bi loolu xewee dafa daf la daf la daf la jébbal plainte moo tax daanaka nga xaw a reculer waat tuuti. non su dee jébbale na plainte bu ko bàyyi. réew mi am na lu waat te maa ngi vidéo yi wax ci man te li ma wax ci moom changé wu ma ci virgule soppiwu ma changé wu ma dégg naa ci lu gën a pire loolu sax ñu ne ma booy papa booy jinne ñu ngi war fi nga dëkk ndàngam ma ne ah ok c'est fii Sénégal la quoi amu ci benn problème lijjantiwuma loolu sax xooluma loolu. mais ñi journaliste yi wax naan Cheikh Ahmed jëggalu na Ndeye Gueye nit ñi di ko tiitare waxuñ dëgg c'est pas vrai. daf ma wax ma tontu ko Matar Diop ñaan ma ma bàyyi ma message ko man na ko baal naa la àq yow baal ma àq comme jullit mais pas maa reconnaître ne maa ko tooñ na ko baal ma duma ko def parce que bi may wax maa ngi sago maa ngi dal maa téye suma micro def interview rëccu ma. Mhm. lu may yàgg denc la suma xol. Mhm. préparé ko wax ko. Sénégal faw ñu bàyyi wax lu la neex ne baal ma man la neex ma wax ko man dafa ma neex ma wax ko ni ma ko bëgg a waxee laa ko waxee. Mhm. te ba may njëkk wax benn télé tiimu ma maa tiim suma bopp caméra suma bopp ci suma TikTok wax la ma bëgg a wax. man bokk du man naa fexe de wax tey naan noo baalem daf ma rëcc dara rëccu ma ci. mais nag tëj naa chapte boobu tourné naa ci leneen. mais bu dee plainte képp na ko continuer. parce que ñu bari ñu ngi wax naan plainte boobu sax moo tax daanaka euh, nga xaw a nga xaw a reculer kenn déggatu la et tout ça. non du loolu sérieusement mhm. non man nekkuma ci yooyu ragaluma loolu. maa ngi ñetti vidéo yu mu waxee ci man ma denc. balaa ma koy tontu. Mhm. du ma làmbatu Sénégal dafa passé loolu. Mhm. te ku la mën a koo mën a seqal teraanga mu tiimaat la ci télé yàq la ketame noo kooku boo ñëwaatee di wax ci moom te amoo ay source bu la pelentee ci kaso gi nga jëm. Mhm. nekkuma ci loolu doxewuma noonu man du ma fonctionner noonu. Mhm. koo gis ma tudd ci internet rek di wax moo ma tooñ. Mhm. gis naa xaritam boobu ay da dadaa di ma tudd mais dama ree rek. xam nga lan laa jàpp keroog bi ma taseeg moom cosaan. mu nuyu ma xàmmeewu ko mu ne ma man la Aïda Dada ma ne ko oh naka nga def mu ne ma dama laa bëgg dama lay seetaan damay ree bay bëgg a man wax jooju la moo ma doy ci moom. moo tax moom du ma ko tontu baal naa ko cofeel gi ma am ci man noonu doy na baal naa ko la muy wax yëpp tamit xaw ma ko. ak moom waxu ma moom supporter sa xarit jarul xas keneen. dëgg yàlla. ndey xaritam la mënoon na xaritoog moom ba suba. waxal ko lu baax lim xam ci moom mais du laaj mu tudd ma man te tudd ma ko loolu tooñ la. Ameth ñu gis ni Sénégal ñàkk mandu la te baal naa ko. d' accord ñu gis ni Sénégal doon na dëkk boo xamante ni euh, ñaare bëgguñu kuy suivi semi nit par rapport ak retour yi ñu ci am commentaire yi alors que sénégalais yu bari sax ak papa boo jëlee ni mu daanoo ñu am ci moom yërmande waaw ba ñu bari sax génn yow di la attaqué parce que Sénégal bëgguñu kuy suivi semi nit. non mais sama fuwa franchement su ma yoon nekku ci man li ma wax laa bëgg a wax ni ma ko waxee laa ko waxee keneen ku sentir wax waxal mais man su nekku ci. daal door neen ma fayu naa point keneen kuy jug di wax ci Cheikh Ahmed te waxut ak yow yow moom jàppal na yaa ko waaw loolu man la ak ndey ñoo xamante ñoo amante numéro ñoo doon déggante ñoo doon tese loolu ñun ñaar la tudduma ci keneen ku ci dugal sa bopp ne yaa ci sa bopp ñàkk mandoog ëppal rek d'accord am na solo Cheikh bi kontaan naa tey am na mbégte ci dalal la